yéen wa Koki yi di ñaan nak di ñaan nous sommes à deux mois des élections élection du élection maire du élection député du élection conseil départemental élection élection président de la république la té man ngeen comme candidat kon dañu wara tek divergence yi ba élection yi jall vraiment loolu moy li nga xamné il faut ma wax len ko parce que pour le moment amul benn solo ñuy wax diw wala diw wala defal ci ki génneel ci ka lu daf ñuy nasaxal alors que tay ji majorité yéen a ko yor yéen a yor doole ji ki fi nekkoon sonalon ñu lool te sama

boo leen bëggee xeex nag boo leen paree mën ngeen xeex après dina àtte si waat mais léegi moom léegi moom ana sele voilà dama bëgg nga jox loxo Kumba Njaay ngeen ànd juboo ci sama kanam muy juboo boo xam ne yéen ñaan ñëpp ngeen góorgóorlu si sele le maire ngeen nekk benn bi élection yi loolu amul benn problème président. voilà jox ko loxo joxante leen loxo laa wax. dina bokk dëkk bi. dina bokk lépp. excusez-moi de dire ça maa ngi jëlee aucun problème par rapport à ça. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw